ñëpp euh, waaw fi ñu tolloon rek moo doon yéen ñëpp xam ngeen dañ doon sant yàlla ci ni campagne bi amee te nag campagne bi amee na noonu dañ doon wax ne campagne bi mu am ci jàmm te campagne bi amee na ci jàmm kon li ngeen fekkee mooy bi may génn sant de bi daje naa ak ñoom ab lay Dieye di dugg si. ma def jéegoy jàmm jëmale ci ñoom xëcc ko taf ko ci sama bopp ngir euh, loolu moo nu war bu fekkee yow yaay wootee jàmm ndax yaa jiite dëkk bi lépp loo xam ne moo koy lawal jàmm jooju loolu nga war a def te loolu laa def biñ campagne bi tàmbalee ba léegi nee naa leen bëri na barab yu ma jaar daje ak yeneen i candidat saafonte ak ñoom maanaam li may def dara changé ci maintenant li leer ba leer mooy euh, Ablaye Dieye xam na ni ñàkk na ni ñeneen ñàkkee waaye xam nga li wolof nanguwul mooy ñàkk-ñànki ba dugg si euh, jëf jooju ñu def ngir jàmm yow nga jóg indi ay xam nga luñ ci jublu bañ nit ñi voté si ñoom loolu lañ ci jublu maanaam nit ñi jàpp ne histoire dafa am ci dëkk bi ba nit ñi naroon voté si bañ a voté si ñoom loolu lañ ci jublu waaye du demee noonu ndax dëkk bi dëkku yoon la dëkk la bu am kiiraay te ñi yore wàllu kiiraay danañu jël matukaay yi ci war ngir nit ñi mën a voté ci jàmm ñibbi ci jàmm ndax loolu nga xam ne suñuy force de défense et de sécurité am nañ ko ci xerañte ba boobaak léegi suñu borom mësal ñu ci liy taal àdduna bi ci wàllu terrorisme ak yeneen ñi mën a aar seen askan ca loola lii waru leen mën a jaaxal alors des apprentis terroristes mënuñu te démocratie continuer di dox tey nee naa leen démocratie dafa laaj mooy noyyib démocratie tey ji élection mooy noyyib démocratie mu mel ne ci la ñu toll kenn ku ci nekk ba nga campagner ba pare mooy lala war def nga ko ba pare li ci des mooy nga bàyyi citoyen yi ñu feeñal seen yéene suñu boroom la muy jaarale ca citoyen jaarale ko ci ñoom bu ngoon jotee képp koo xamante ni am ngandam ndam mais nit ñi félicité la ñu avancé continuer doxal Thiès. est-ce que ñaawul ñu ne Ablaye Dieye ak Talla Sylla ñu ngi jàppante ba garabaat. non non Talla jàppantewul ak kenn ci seen kanam la Talla bi muy génn centre de bot ab Ablaye Dieye mi ngi dugg si sama rakk la. donte amul kaddu mais sama rakk la ndax nag li ngeen xamul mooy balaa élection yi Ablaye Dièye suñu liste la bëggoon bokk ay nit nag donc certains tapis à la présidence que je connais très bien mais sans l'aval du président ñoo xam ne seen doxu bopp la ñuy dox ñoo xam ne ils sont adeptes du mburoog soow ñu jàpp ne war ñun ñoo war a am ndam ci dëkk bi ci information yi ñu am ñu ne nañu fexe mu am beneen list boo xam ne day capter yenn ci voies yi ñu détourné ko moom Ablaye Dièye defloo ko liste non seulement defloo ko liste mais defloo ko à la fois candidature ci est ak ci ville en violation même du principe même de la réforme ñëpp xam nañ ni réforme bi mooy citoyens yi mën a xam kan la ñuy fal kon xam nga soo ñëwee nekk candidat ville ne candidat commune mooy soo amoon ndam sax di nga démissionné benn bi conseil bi war a tànn koy nekk maire kon xam nga loolu su amee ña def la daa am luñ ci jublu xam naa loolu man waaye loolu du tax ñoom ñu am ndam ndax cees moo jóg pour moom boppam Thiès waaye ñoom maar ci lu doon dox ci dëkk bi mais loolu buñ koy lijjante aussi kenn du ko lijjante yat kenn du ko lijjantee xeer dañ koy lijjante bu si élection. yow yaa war a mën a Idrissa Seck dañ ko yuuxoo ce matin. fële Malick rek. waaw xam nga man duma bokk ci yooyu te duma ma encouragé yooyu du ma bokk ci loolu duma ma ko encouragé ngir dama jàpp ne citoyen bu nekk d' abord am nga droit voté ji ci calme ñibbi ci calme mais candidat bu nekk aussi am nga droit def ko mais leader politique bu ci nekk aussi am nga droit dem voté ji ñibbi pour man su ma bëggee yuuxoo nit ci carte laa koy defee. du dégg pour man phénomène yooyu duma leen encouragé du ma ko def duma ko defloo nit quelque que soit ki ciy nekk victime maanaam tey jii ñëpp xam nañ man ànduma ak Idrissa ñëpp xam nañ ni sama pexe bu jubee tey jii ci ngoon mu retraité ci wàllu politique mais nag du ma ko yuuxoo du ma ko du ma wax kenn mu yuuxoo parce que loolu aussi jàpp naa ni du sama wàll en tant que mais du sama wàll aussi en tant que leader politique. école Aliba également gis nañ fa léegi deret tuuru na fa ay militants yaa ngi ko bañ a dara ak ñeneen ñoo xam ne nee nañ ci yow lañ bokk deret tuuru na fa sànq fa lañ jógee. waaw xam nga loolu ñëw na ci Thiès moom laa la ne ku def lu mel noonu ma ñaawlu ko ndax gis ngeen ni campagne bi dama ko ubbee ñaan tëje ko ñaan booba xamoon naa ci biir ne am na ñoo xam ne am nañu les vraies informations sur l'état de l'opinion dans cette am nañ ko. am l'état de l'opinion dans cette ville moo waral ñuy tegi pexe ci biir campagne bi j'ai yi bañ di def ay rassemblement yu nit mën a créer violence di wàccal sama bopp di dem ci nit ñi ah, di wax ak ñoom ba mu jeex bis bi nga xam ne lii ñenn ñi def tey ñi ngi ko doon séntu bëggoon ko def ci bis boobu muy clôture bi ñëpp xam nañ ne promenade de Thiessois ñun ñoo ko laajoon et mënoon nañu faa tëjee ñu ne ñu keneen lañ ko jox ñoo xam ne jot nañ faa organiser ci biir campagne bi ba pare ma bàyyee leen yaa ngi dégg kon xam nga man mënumaa def loolu ba pare di encourager kenn kuy indi violence ci fenn ak ci kenn mais lii lépp li muy jàngale rek mooy amoon nañu dëgg ñun waa coalition waa Thiès wax nit ñi ne tey ngeen war a indi lu bees ndax nag juróom-ñaari at ñi ngi seen wet déggu leen benn histoire bu juddoo si ñun juróom-ñaari at ñi ngi seen wet ci lan lañu nekk ci li ngeen ñu dénkoon ñuy liggéey mais suñ ko defee ba noppi yéen xam ngeen ni mosu leen gis benn maire sortant boo xam ne dañuy campagne ba jeex te di néew nañu ko jug xam ngeen ne néew na maire sortant ci ab dëkk bu ay nit di xëccoo ay affiche yéen xam ngeen ne néew na maire sortant ci ab dëkk bu mën a def mbeddoo mbedd këroo kër te du dégg baatu safan kon loolu ñoom ñoo la ko gën a xam parce que ils ont les moyens du renseignement et ils savent que bu ñu tegul benn pexe càcc wala benn pexe buy tax nit ñi duñu voté ji ñoom ñàkk nañu dëkk ñoom xam nañ loolu ils le savent mais nit nekk aussi bu fekkee ne da nga daan toog ci ay jamono ñuy def élection ngay gañe ci même dëkk nit dëkk boobu defal la lu nekk am na loo xam ne waru la ci sa diggante dëkk boobu mooy waa dëkk boobu ni ñoo amee woon liberté sans benn xaalis mas leen a conditionné sans que état mas leen a conditionné combat boo mas a nekk ñu porté la ko suñu demee ba bém jamono ci seen liberté boobu ñu wëlbati ko yow ci sa bopp wan la ginnaaw da nga koo war a nangu mais organiser dem bi ci anam bi mu gën a rafete dama leen ko léeboon ñoom ne dafa am ñaari frère magal rak yu ñu condamné à mort ki gën a ndaw ne mag ji jekkalal sa taxawaay ngir ni ngay daanoo jekk kooku ne koo xam ne daanu da ngay dee rek looy lijjanti ni ngay daanoo mu ne ko bu dee ci àdduna ni la fa desee mooy ni ngay daanoo da ko war a jekkal s'il n'intéresse que la façon de tomber il faut la soigner alors aujourd'hui ce que nous constatons en tout cas ce que c'est que euh, des mauvais perdants qui savent à l'avance qu'ils ont perdu parce qu'ils ont sondé l'opinion. Ils ont été sur le terrain. Ils ont déplacé du bétail durant toute la campagne. Ils ont sorti l'argent à flot, à gogo, pour organiser de fausses mobilisations, déplacer des foules de quartier à quartier, de place à place, pour donner cette fausse impression que les Thiessois sont mobilisés autour d'eux. Nous avons choisi de procéder autrement. Nous avons choisi de marcher vers les Thiessois pour faire marcher Thiès. Nous avons choisi d'aller à l'écoute des Thiessois, puisque les hommes politiques, j'allais dire les politiciens, ont l'habitude de parler et de ne jamais écouter. Nous avons dirigé cette ville pendant 7 ans et pratiquement 7 mois. Nous avons estimé que durant cette campagne, nous ne devions plus passer notre temps à parler, puisque nous avons un bilan qui parle pour nous. Euh, Alors, nous sommes allés vers les Thiessois qui nous ont écoutés et qui nous ont parlé de leurs doléances. Parfois, la satisfaction de ces doléances pouvait dépendre de nous au niveau de la ville, mais parfois, c'est doléances qui dépendent des communes, mais parfois aussi, c'est des doléances qui dépendent de l'État, puisque les populations ne sont pas toujours au courant des subtilités du Code général des collectivités territoriales. Mais notre devoir, dans tous les cas, est et à ah, et le cas échéant donc une fois que nous serons élus de revenir pour prendre en charge ces doléances et en faire euh, justement notre ligne directrice et aller dans le sens. Ce soir le changement est inéluctable à Thiès. En tout cas, il y aura forcément un changement. Le changement c'est que au niveau du conseil départemental, vous aurez un un autre président, forcément. C'est déjà un changement. Je l'avais dit à l'ouverture de la campagne. ici au niveau de Thiès Est là-bas au niveau de Thiès Ouest et ma conviction profonde est que Thiès Nord va balayer Lamine Diallo donc il y aura un changement alors j'ai été au conseil j'ai été maire pendant sept ans et sept mois dans des conditions que vous connaissez des conditions difficiles où le conseil souvent votait contre le budget ça ne se répétera plus puisque dans tous les cas il y aura un nouveau conseil dans tous les cas donc forcément on ira vers un changement ce changement devra être profitable aux Thiessois. À mon avis, les uns et les autres doivent savoir raison garder. Puisque au-delà de ce scrutin, nous aurons à nous retrouver dans cette ville. Mais nous aurons aussi à nous retrouver dans ce conseil pour servir les Thiessois. Donc, les différents leaders doivent faire taire les faucons qui sont autour d'eux. Puisque quand l'argent part, il y a des gens forcément qui s'agitent. Et aujourd'hui, notre devoir en tant que leader, je parle des différents leaders dans cette ville, c'est de travailler à apaiser les choses, à calmer les choses à permettre aux Thiessois de s'exprimer souverainement parce que c'est cela. Et l'argument euh, La violence. Je dénonce la violence. justement euh, ces actes euh, qui ne sont pas simplement agressif, mais qui constitue même une agression. Je ne le considère pas comme agression, mais je considère ça comme agression, avec la volonté, toute la volonté qu'il y a derrière, puisque il y a préméditation. Alors moi, je pense que euh, il faut lancer juste un appel. Ça, c'est le maire. L'appel au calme, l'appel à la sérénité, l'appel au respect des citoyens qui ont le droit de s'exprimer. C'est vrai, ils ont le devoir aujourd'hui de se prononcer pour faire marcher la démocratie, mais ils ont aussi le droit de s'exprimer. Et il faut leur permettre de s'exprimer. C'est ça aussi le respect de la volonté populaire. Puisque les gens ont l'habitude de dire ne volez pas les élections, ne truquez pas les élections, c'est il faut respecter la volonté populaire, mais permettre aussi aux citoyens d'aller dans les centres de vote et de voter dans le calme et la sérénité. C'est ça aussi respecter la volonté. Merci beaucoup. Voilà, am na loolu maanaam li ma wax léegi ci kàllaama tubaab mooy ah bisu élection bisu askan wi la su ngeen seetloo bu may voté damay raam parce que bis boobu du bisu candidat yi bisu askan wi la ah, bu mu fekkee ne man maa tàmm bi ma neex ma ñëw ci centre de vote am ñu ma jiitu. ñoo xam ne xëy na sacrifié nañ seen nelaw wala leneen lu ñuy def ba ñëw rang man damaa jàpp ne waruma leen a romb dem ci kanam dem vote ji gën leen a xaarloo cinq minutes wala dix minutes supplémentaire loola li muy tekki mooy dama jàpp ne bisu élection bisu yi la te ñun li ñu war mooy fexe ba kenn ku ci nekk sañ-sañ bi mu am ci vote bu ko kenn xaj alors fexe nag def yu mel ni ñi koy def lañ ci jublu mooy xañ ay citoyen seen bot ndax ñoom ci seenub jàngat dañoo jàpp ne nit ñi war nañ leen ginnaaw waaye ñun li lu war mooy wax nit ñi ne ci dal kiiraay am na fi kaaraange bu mat am na fi da ngeen mën a jóg da ngeen mën a voté te dara du leen jafe man ci sama wàllu bopp lépp loo xam ne mën naa ko ci dal googu dama koy def moo waral bi may génn am ñu tànn ñëw ci waxtu woowu te xam naa loolu parce que nag nit yaay moytu lépp lu mën a indi fitna ñoom ñoo taamu ñëw ci waxtu woowu kon ñoo taamu ñëw ci waxtu woowu am luñ ca jublu woon bi may génn xëy na ni ma doxale bett leen man maa xëcc Ablaye jëf tey jéeg kàpp ak sama bopp ba ñu duggee lañu organiser war xam ngeen ni d'habitude bu may def déclaration ci buntu centre laa ko def mais xam ne am na situation bu fa am bañ benn espèce de coow moo tax ba ñëw ba fii ci sama buntu kër maam ji ndax nag fii ñu taxaw sama maam moo fi doon délégué de quartier sëñ Ablaye Yaqin sama maam la ko dégg donc moo ma njëkk a nekk maire ma ñëw ba fii daal moo tax ma ñëw dem alors yéen ñëpp yéen a ngi fi agression boobu du taal kese la ñu agressé démocratie la ñu agressé ndax agressé démocratie weeruwul weesuwul def loo xamante ni nit ñi ñoom ñoo ci am sañ-sañ nga bëgg leen koo téye doxal loolu nag laay wax ni sama wàll en tant que maire woo mooy woo ñëpp ci dal ku juumoo ne nga fexe ba xoolaat sa bopp woo ñi la jege nga ràññee ci ñi nga xam ne fitna moo leen arrangé parce que bu xaalis jógee ñi nga xamante ni ñoom loolu rek leen intéressé dafa am leneen lu ñuy dox ca biir may wax ne nag ku nekk woo ñi ko jege ci dal ba ñu àggalee li ñu tàmbale woon ndax campagne bi nag moo doon dajale mbooloo yu bëri te moo waroon gën a mën a nekk lu doy waat ndax ndegam loolu amul kon tey ji bis bi ci des war nañ koo mën a sàmm ba lépp dal en tout cas ñun ci suñu wàllu bopp loolu lañu ñu ci loolu la ñu nekk képp koo xam ne yaa ngi wuyoo à Thiès bul sooke fitna bu ko xamb tamit man xam ngeen ne élection yu mujj yëpp gisu leen ma ma voté ba wër benn centre de vote élection yu mujj yëpp gisu leen ma ma voté ba wër benn centre de parce que dama jàpp ne boo nekkee maire loolu du sa wàll avant ma doon nekk maire dama ko daan def te benn histoire mosul jóge ci te nag gis nga yii fi ñii xam laa wax xam nañ ni du lacrymogène du lu ni mel daal moom loolu jaaxlu mais buñ la dénkee baatu ñëpp amatuloo droit di jiital sa xolu bopp wala sa bëgg-bëggu bopp walla sa fitu bopp buñ la dénkee li ñëpp bokk la la war mooy lu mu tàng-tàng ak lu mu jaxasoo jaxasoo nga seet la nga xam ne moo gën a mën a may dal am li gën a mën a indi jàmm li nga mën a gën a mën a may nit ñi ñu mën a exprimer seen kàddu te benn affaire du xew nga def voilà lii daal mooy li nga xam ne. ñu yàqal de ñu yàqal de.